lan nga ci sànni ci ay kàddu ci li nga xamante ni euh, moom laa moom laa interroger ñaaw muy accident yu bari yi ban gis-gis na ci am. waaw macha allah euh, gis-gis tamit euh, bu rafet laa si am lu tax ma wax gis-gis bu rafet mooy que borom xel yi laay waxal parce que boo waxee ku nekk ak ni mu koy jàngatee. waaye man li ma si intéressé mooy sama gis-gis jàpp naa ne lu rafet la premièrement mu ngi wax côté njëkkante ma wax la benn point lu tax ñuy njëkkante ñoom te loolu tax ñuy njëkkante jarul njëkkante waruñu ko def muy xaalis xaalis bi pour pourquoi transporteur bi moo ne yow sàmba soo versé cinquante mil hmm. yàgg sa receveur kenn ku nekk am na per jom mille cinq cent yu bokk ak sa lekk ak sa naan ak sa pay commission la ñu ne bu ngeen verse soixante mille yàgg sa receveur ku nekk am na deux mille francs récompense waaw léegi transporteur bi su demee bay wax loolu ay employé moom moo leen njëkkantaloo moo tax damay rejoindre ñaa si mu ne bu ñu jëlee chauffeur tëj ko dañuy jëli transporteur tëj ko raison yi tax ñuy def mu wax loolu nag da moom lay détaillé. parce que transporteur bi amul benn droit mu yor ay ticket jox chauffeur ak receveur ne leen dem leen liggéey ba pare di leen wax problème de versement mu mel ni taximan bi ak transporteur am mu ne ko chaque jour dix mille francs nga may verser mais. bis du taxi. Mhm. donc nekkul secteur formel. mais war na mun a nekk secteur formel secteur formel état bala mu see dugal loxoom ñoom am personne nañ formaliser. nañu formaliser seen liggéey. ñu neex dimbal na sa fekk loxoy boroom. Mm. fii ku fi conducteur tata bus aftu bu fi def accident loxo transporteur ba ma nga sa biir moo ko moo ko moo ko sooke parce ticket nga leen jox na leen jaay leen fi li ngeen jaay si ticket yi moom ngeen di versé kon t'as pas le droit nga siy dugal beneen moo naan leen su ngeen amee versement cinquante mille dinaa leen euh, récompenser ku nekk mille cinq cent soixante mille ku nekk deux mille soixante cinq mille ku nekk deux mille cinq cent et cetera. loolu moo leen di poussé ñuy njëkkan. mais mais mais je pas d'accord ak yow xamul tax. Mm-hmm. liggéey bu nekk euh, soxla nañu motivation. Mm-hmm. Euh, c'est pas parce que man mi la embauché dama la motiver que da dem def n'importe quoi c'est-à-dire moi je t'encourage à bien travailler ku nekk gis ci boppam gagnant gagnant la mais ça ne veut pas dire que parce que bu fekk munoon na ko bañ a def ne lii lii laa leen fay lii laa leen fay dem point mu mu yem ci mais bu bu la nee soo indee lu bëri moi je pense que c'est de bonne foi c'est-à-dire que alal bi may dugal bëgg naa yow it nga gis ci sa bopp maintenant c'est au chauffeur d'avoir d'avoir la responsabilité xam ne c'est pas parce que dafa am prime derrière que dafa war a def n'importe quoi man foofu rek laa doon bëgg a wax monsieur monsieur comment c'est mhm, Kajoor Cissé waaw Kajoor Cissé waaw Kajoor ak euh, man Kajoor du ma ànd ak yow foofu nga génn xam nga lu tax xam nga lu tax du ma mën a ànd ak yow parce que motivation foofu amu fa yoon dafa am moo boo xam ne bu génnee dafa war a am fu mu dem direct mais du moo génn rek fu nekk war na fa moo war na fa dugg déedéet bu dara jibee dafa am lu mu concerné am lu mu bàyyi mais foofu modifa motivation amu fa yoon fa euh, pourtant modif motivation amu fa yoon ticket bi moo tax motivation amu fa yoon ticket bi nga leen jox ne leen dagg leen ko jaay moo tax amu fa yoonu motivation bu fekkoon ne tey joxoo leen ticket sax ne leen yàpp leen ay client comme car rapide yi nga xam ne amuñu ticket sax amoo droit nga ne leen ku verser temps ma jox la temps foofu du motivation motivation fi ma ko doon xaar mooy que sàmm leen matériel bi bu ngeen dawalee 6 mois bëriwoo leen ay soog ay accident yoo xam ne ne yéen a tooñ dinaa leen jox ndàmp ay nangam foofu la motivation am yoon. wala à la fin de l'année. à la fin nga jox comme suba le premier mais ñu xool diggante euh, bi nga liggéeyee ba le premier mai ñu gis ne yow li nga tooñ si ay accident néew na. Mm. ba defoo yenn lool sàmm nga matériel bi yaa ngi def entretien normal téye nga oto bi. et puis sa comportement sa communication yëpp nice good fine foofu motivation am na fa yoon mais ma jox la ticket ne la daggal. jaayal ni mu loolu nga may versé may am motivation mais yaa ma njëkkanteloo yaa ma defloo accident motivation. amu fa yoon